nuyu la bàyyi la nga nga présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen ziar la Moustapha Mboup président euh, CAV commerçant autour d'une vision di nuyu di ziar Sénégal yëpp. Euh, CAV lan moo ko lan moo ko tax jóg. CAV euh, ay commerçant lan yu nga xam ne dañu bokk benn gis-gis. li ko tax jóg nag mooy rassembler bépp commerçant. bu nekk Sénégal euh, ak euh, bitim réew euh, nga xam ne bépp jafe-jafe bu doon am lu mel ni kayit wala marché yi lakk ak yeneen ak yeneen yooyu yoon suñu borom dimbale ñu jële ko fi ñun waa ànd ci nag ak autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ngeen jëm ci événement bu mag nga mm-hmm. xam ne le 18 la war a am sababu événement bi lan la exactement. Mm-hmm. da ngeen bëgg wut ay fonds da ngeen bëgg a dajale commerçant yi wala bit bi lan la. waa li ñu gën a yitteel nag moom mooy dajale sax commerçant yi ñu ñëw toog mm-hmm. waxtaan ndax euh, dañu bëri ay projets yi nga xamante ni mu ngi suñu kanam. te euh, war nañ ci ànd ak bépp commerçant bu nga xam ne yaa ngi Sénégal. Euh, ci ki nga xamante ci ànd ceeg tam partenaire bu mag bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñuy lëfa muy ministre de commerce. Euh, wax dëgg yàlla tijjil nañu portam yëpp. jàppale leen taxaw na leen jàppale nañu taxaw nañu. Mhm. tëjaluñu benn porte. te pare tam pour liggéey ak ñun. Mhm. te ñun tam pare na pour liggéey ak euh, bépp commerçant bu nekk Sénégal. Mhm. merci beaucoup président. Euh, ñu nuyu la euh, bàyyi la nga présenté waaw salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Mbaye Sarr. Mhm. di secretaire général bu CAV. Mhm. commerçant autour d'une vision. Mhm. Mbaye Sarr ku ne xam na ni commerçant yi actuellement ci ci ay kuréel yu uute lañu bokk. ay kuréel yu bari. tey est-ce que CAV bi tey pare na pour dem tàllal loxo yeneen commerçant yi tey pour xëcc leen seen biir. waaw ñun comme ni ñu ko waxee rek ñun ay commerçant lañ te képp koo xam ni commerçant la. ñun pare na comme président bi ni mu ko waxee léegi pare nañ pour liggéey ak yow donc dañu gëm ne maanaam dëkk du benn mouvement wala benn nit rek moo ko mën doxal donc c'est tout à fait normal ñu dem ba benn instant boo xamee ni boo gisee UNACOIS fii nga gis beneen ACIS fii mais c'est tout à fait normal pourquoi pas CAV donc commerçant autour d'une vision ñu bokk même gis-gis bokk ni ñuy demee bokk di dóorandoo di xàcceendoo di dóorandoo donc amuñu benn problème pour maanaam liggéey ak qui que ce ku ne xam na ne commerçant yi seen problème mooy wàllu assurance ndax gis nañ des fois bu amee ci marché yi commerçant yi ñu ci gën a yàqule bu inondation amee des fois commerçant yi ñoom ñu ci gën a yàqule mais au fil dañuy gis ne que da ngeen di ñàkk du mu jën fenn loolu à la faute euh, euh, euh, la faute à qui bon la faute à qui bon man je la faute au mhm. parce que buñ booloowee doon benn comme ni mu ko waxee léegi ñu booloo doon benn problème yooyu du am te comme ni ñu ko waxee CAF depuis bi ñu démarré ba léegi képp koo xamee ne yow autorité nga te nekk di yëngu si wàllu commerce wala sax si wàllu santé ñu ngi jéem pour gis la. Mhm. mu commencé fii si fi nga xam ne mooy foire. donc yàlla def na à chaque fois bu ñu toogee waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi am na ay digg yu ñu lay dig. te digg yooyu dañ siy dem ba jeex. Mhm. donc malheureusement nag commerçant yi la plupart booloo. même bu ñuy booloo sax am na yoo xamee ne c'est-à-dire bu ñu demee ba mhm. moo ñu warul parce que mooy li fi indi li nga xam ne mooy multinationale yi di ñëw mm-hmm. di ubbi ay boutique wala di ubbi ay ngandi magasin yoo xam ne dañuy daaneel commerçant yi mm-hmm. donc loolu mooy li nga xam ne moom laa xalaat si question mm-hmm. boobu tey wàllu wér-gu-yaram ku nekk xam na ni euh, commerçant yi aussi lu ñuy souffrir la man nekkoon naa ci marché commerçant day feebar ñu ne nañ ko ñaanal ndimbal ma jàllal ko pour faj ko te ñu gis ne que dinañu yëngu secteur boo xam ni am lente bi ci la gën a yombe dëgg euh, loolu am na te pour wax la rek na li ñuy yëngu si côté boobu noonu gis nga fi ñuy wax ak yow ni ça fait même pas une heure de temps mm-hmm. doon waxtaan ak ki nga xam ne mooy directeur foire bi mm-hmm. mu dig ñu si ay mu dig ñu ñun cave mm-hmm. ay mbir si affaire boobu noonu donc dem nañ ba toog ne ba li nga xam ne mooy mutuelle de santé te commerçant yu bëri di ko ñàkk maanaam tey da gis ne commerçant bu feebar tey yaay faj sa bopp mais commerce commerce mbiru mbiru mbiru yàlla la des fois day dox mais bu fekkee ne dafa leen groupement am ay mutuelle de santé ak yooyu noonu. Mhm. là je crois que problème mooy am. mais côté mutualisation aussi dañu gis ni. Mhm. commerçant yi ba tey amaguñu mutuelle ak crédit bu ñu moomal. Mhm. seen bopp. waaw loolu dëgg la ñun nag CAF si loolu mooy li nga xam loolu mooy li nga xam ni si moom la ñuy jóg instant bi bu ñu paree si suñu journée bi journée sargal bi. sargal bi incha allah maanaam journée bi nga xam ne si la ñuy tuddee CAF. bu neexee borom bi képp koo xam ne commerçant nga te nga bokk fi nga xam ne mooy cave bu neexee borom bi li nga xam ne mooy mutuelle de santé incha allah ko am doo am benn problème. Mhm. donc loolu mooy waaw loolu daal ñu ngi si. ñu ngi ci mutualisation pour seen wàllu xaalis. bien sûr. ku ku leen jox. bien ngeen denc. ñun sax mooy li ñuy wax rek xam nga ñun commercant yi ñun bokk en tout cas cave li ñuy gën a ragal bokk na si maanaam nga baal ma si banque yi maanaam mhm. dem di la banque man ñun dañu gëm ne lépp loo xame ne moo mën a yóbbu commerçant du dara dulul maanaam liggéey. Hmm. liggéey kese dëgg la nag banque moom am na foo xam ne ba fa tolloo di nga di nga ko soxla. Hmm. mais nag quoi qu'on puisse dire nañu démarrer ak suñu maanaam li nga xam ne mooy moyen bopp. donc pour tontu la sax si question côté santé boobu noonu. Hmm. gis nga suba incha allah bu neexee borom bi donc demain vendredi 18 le 18. incha allah bu neexee borom bi suba si dañuy may deret. don de sang don de sang la ñuy def. incha allah. Dior Sall. Hmm. Dior euh, le 18 incha allah ngeen fas yéene def seen bés boobu di sargal commerçant yi nekk ci Kaaf mën nañu xam programme bi journée bi ak guddi gi naka lay déroulé. ak yan kilifa ngeen di xaar ko waaw mu présenté wu d' abord man la Dior Sarr di présidente des femmes batante de marché Petersen nekk bokk ci Kaaf aussi nekk trésorier Kaaf mais suñu but. nekkul ay ñëw woo ñi ñu soirée kaay leen fecc mbumbaay ak ñoom seen dadi nag ay jeune lañ te jeunesse la ñuy woo jeunesse bi ñuy woo war na nañ mën a tegal nit boo koy woo ci li nga bëgg danga koy woo ci li mu bëgg ba mu ñëw nga doog ko tegal li nga bëgg looloo waral ñu jël sii di Diop engagé ko pour mu ñëw tëggal ñu soirée mais soirée bi lu tax ñu bu ñu bëggoon soirée mbumbaay dañuy génn esplanade wala dara parce que am nañ moyen bi mais lu tax ñu jël salle unité africain dañu bëgg ñëpp bu ñëwee toog balaa siidee way di def dara ñu def suñu lancement de programme wax nit ñi lan moo yëkkati cave ak lan moo tax a jóg cave tey commerçant yi tey boo njëkkee na dugg ñëw di wax association lu ñu lay njëkk a demandé mooy ndax am na leble xaalis loolu lañ lay njëkk a demandé mais ñun loolu du suñ but nii nii nii kuy leble xaalis bu ñëwoon wooñu sax dañ koy wax parce que tey boo jëlee xaalis bi rek mooy jaxase nga affaire yi mm. but bi li ñu gën a soxla ñun du xaalis parce que dañuy gis en général commerçant bu ci feebaroon tey jii bu tëraay bi yàggul sax mën nga dem ak say moyen mais bu tëraay bi yàggee rek ci ket ngay mujj mm. ñuy dugg ci marché di leen ketal naan diw mi doon jaay fii la ñuy ketal moo feebar wala moo war a def opération moo war a def nangam ñun loolu lañ fi bëgg a dindi mm. am na aussi commerçant yoo xamante ne ñu ngi ci milieu commerce bi di xëy di gañe xaalis mais këyit yi commerçant war am nekkul sax seen bopp mm, lijjanti ko dañ doon dañuy xaar ba tukki bett leen wala yoon mm. bett leen ñu ñëw fu ñu war fay tey 10 000 francs 5 000 nit ñëw ne leen indi ma lijjanteel leen ko fayeeku leen fa 150 000 fu ñu war a fay 20 000 ñu fayeeku leen fa 200 000 mais loolu dañu bëgg a dindi avant tout mooy suñu premier objectif dañuy bëgg commerçant bu ci bokk dañ lay régulariser ba nga nekk commerçant lijjanti taxawu la nga ut NINEA ut registre de commerce am import export am carte commerçant ba pare nga doog a légal yow nekk ci membre bi bu ñu paree beneen but bi ci topp mooy dañuy def mutuel de santé bi ma lay wax pour dañ fee bëgg a dindi di wër ci marché yi di ketal ñiy feebar ak ñoom seen mutuel de santé boo xamante ne yow mi bokk cave nekk commerçant sa mutuel de santé sa tour bu dee sa tour da ci nekk sa tour jabar nekk ci sa tour njaboot nekk ci tey boo feebaree foo war a dem fay cinquante mille nga fay vingt mille yi bi fay trente mille yi loolu moo nekk suñu deuxième objectif boo xamante ne taxaw nañ pour def ko te am nañ ci ñooñu jàppale. Mm-hmm. affaire bi naka lay déroulé vendredi incha allah. waa programme vendredi bi parce que ñun dañu nekk nag ay doomu jullit nekk réew moo xamante ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay musulman lañu. Mm-hmm. moo tax looy ubbi da nga koy ubbee alxuraan doom sax boo ko juree dañ la naan bala ngaa dugal ci boppam dara na jàng alxuraan ba pare. Mm-hmm. moo tax dañuy wàccee kaamil wàccee kaam bi tamit nekkul ñun kase ñoo ko am na daal ñëw mais képp ku ci xaj rek te yéene ko yéene ñu ko rek ñu ngi lay woo boo mënee am équipe boo àndal ñëw ci wàccee kaamil ngeen ñëw ñu wàccee kaamil ñu ñaan yàlla ci programme bi ñu dugg suñu borom teg ci loxo wàccee kaamil ñu ngi koy defee ci biir CICES bi ñu paree ci wàccee kaamil dañuy def don de sang di woo sénégalais yëpp di leen wax ni banque de sang yi manqué nañu sang te ñun jigéen ñi surtout dañ ko soxla ndax ñoo nekk toll ci mbirum jurum doom ak yooyu dañu soxla deret te banque de sang yi dafa m deret ñuy woo appel tous les les sénégalais képp ku mën a maye deret le ñëwal nga maye deret bu dee da nga jël initiative pour maye deret bu bul ndékki booy ñëw boo ñëwee bu maye deret pare di nga ndékki buñ paree ci maye deret bi dinañ def consultation bucco-dentaire gratuit pour ñu am problème mu bëñ ndax alimentation bi baaxatul léegi ñi Sénégal yëpp seen feebar mooy problème mu bëñ bu ñu paree foofu nag ba pare bàyyi gars yi ñu dem julli ji jumaa ba nga xamante ni boo xasee ba julli ji jumaa presque moom vendredi bi passé na ñu doog nag dugg ci soirée bi nag mais soirée bi bu ñu ñëwee tag rek nekkul da ngay ñëw rek nga yéegal artiste mu yéeg képp ku bokk kaaf wala bokkoo kaaf di dégg kaaf bëgg xam lan la kaaf di def da ngay fexe nga ñëw ci soirée bi boo ñëwee dinañ def suñ lancement de programme wax la kaaf li ko yëkkati li ko tax a jóg ak lan mooy njariñ bi ëllëg ak yan avantage la la mën a jural. merci beaucoup allah.